wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar yuridu llahu bikum alyusra wala yuridu bikum alasr wa litukmilu alidda wa litukabiru llaha ala ma hadaakum wa laallakum tashkuruun bokki jullit yi bokki Sénégal bokki Afrique bokki àdduna wërngal këpp dellusiwaat ak yéen ci ni ko yàlla delloo si waatee ren mu mel ni ñu ngi jóge at tey jii ñu duggaat ci beneen at daaw lañ toogoon ci weer wi daldi ne weeru koor jot na weer woowu nga xam ne weeru koor la weeru jaamu yàlla la weer boo xam ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko jox ay mbindaa ngir ne daf ko boole ci juróomi keno yi nga xam ne moom la yàlla teg mu nekk keno lislaam shahada an laa ilaha illa allah wa ashhadu wa shahada wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaai zaka wa sawmi ramadan wa xajjul bayt liman istataa ilayhi sabila mu mel ni alhamdulilahi rabil alamin ba nga xamante ne weer woowu jeexoon na dem na yàlla indil ñu beneen weer indiwaat beneen indiwaat beneen diggante bi mat na fukki weer ak ñaar mbokk yi dugg nañ ci weeru koor gannaaw bi ñu waree daaw beren ñuy toog di lekk di añ di ndékki di reer di naan ba lu tolloog fukki weer ak ñaar yàlla ne aha kon sama weer jot na ak ca kon wooral leen ma sama weer wi mu mel ni conseil constitutionnel mu mel ni parlement wala assemblée nationale lu mel ni présidence wala lu mel ni ministère ci ministères yi yëpp ci àdduna bi mu wër yëpp ci àdduna amu ci benn conseil constitutionnel boo xam ne am na sañ-sañ ak kattan bu mën a bind décréter ne weer sàngam na ko jullit ñi woor amul ci assemblée nationale yi ci àdduna bu ko mën a voter ne weer sàngam la ñuy woor su fekkee ne arrangé wuñ ñu jël beneen weer su fekkee ne day tàng ñu jël beneen weer waaye déedéet innaha la shahrun unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinat min alhuda walfurqan idan man shahida minkum shahra falyasumhu mu mel ni gannaaw bi nga xamante ne ki nga xam ne moom kenn dong ci man-manam ci kattanam ci sañ-sañam mu mën a taxaw ne woor leen ñépp woor kon kay alhamdulilahi rabbil alamin nam ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ne bu ngeen gisee weer wi na ngeen woor suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma ko fa ak akmilu iddata chaabana thalathina yowma kon kay coow jeex na leneen jeex na kon yàlla mooy indee at atteem ak su suñu jëlee ñaar ñi ñu njëkk a wax mu dina amul benn pouvoir ci àddina mu xam judiciaire la mu xam exécutif la ci pouvoir yi ŋànk réew yëpp amu ci benn boo xam ne mën na bind décréter ne weer sangam lañuy ñuy woor benn beneen ba moom yàlla yónni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibn abdillah daal di ne waxal ma leen ne weer bi nii lañ koy <clears throat> wuree nii lañ koy woore wër ko woor ko te bu ko kenn wor wër ko mooy ñu wuti ko wër ko mooy ñu dem seeti ko wër ko mooy ñu fexe seeni ko ne bu ñu ko gisee nag nañu woor kon mbokk yi ñaar yi war na mën a tax yow nga ñëw nga ñetteel leen ne kon man danaa dégg ndigal dégg ndigal bi mooy lan danaa dégg ne ñaar wala ñetti pouvoir yi ngànk àddina mënuñu maa woorloo waaye tam ñaare ba ma gëm ne ma jàpp ne ma nangu ndigal ne yàlla moo ma woorloo ci weer wi te nii la moo ko woorloo te fii la moo ko woorloo wala fee wala fële bi maana man shahida minkum shahra moo xam mu fekk la Espagne Italie Europe Amérique Afrique fu mu la mën a fekk ne na wooral kon mu mel ni kon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ngi woo jaam bi pour mu ñëw pour mu dikk mu jël sañ-sañ ak kattan ak dogal bi mu yor moom yàlla ne woowu weer woowu boo ko wëree ba gis ko ne man bu àllaaxira maa la fee sama bopp asiyaamu lii wa ana ajzi bihi wal xasanatu bi ashri amthaliha ne weer man maa ko moom koor man maa ko moom yow nit maa la moom maa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazaq dhul quwati almatin mbokk yi kon ñu ngi ndokkal àdduna wërngal képp àdduna bii nga xam ne mu ngi dem di dem di dem di dem àdduna bi nga xam ne nit ñaa ngi cay dee àdduna bi nga xam ne baay ya maam ya yaay tant ya jabar ya doom ya sët ya gardien ya chauffeur ya ñi ca ndox ma ñi ca jéeri ja ñoom ñëpp ñu ngi dee lu bëri bëri dee ci adduna bi rawatina ci ñaar ba ñetti at yi nga xamante ne depuis Covid 19 2019 bere ba tey nit ñaa ngi dee di dee di dee ci noo xamante ne musuñ ko yaakaar wala di ko foog na dana bëree noonu. waa akay ah yàlla ne man maa moom kullu nafsin zaiqatul mawt kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram mu mel ne kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weer woowu nga xam ne balaan ci dugg ñu ziyaare ñëpp nga xam ne mooy bos bis bu jëkk ñuy woor ñu ne ko nañ ziyaare ñëpp ne kon déwénati leen bi maanaa yan nañu fit déwén fekk fekkaat fekkaat ñuy fekkee ay déwén di fekkee ay déwén ba mu jeex kon mu mel ni bu ñu ndokkeele ñu tàmbali di ndokkeel ci ki nga xam ne mooy borom kër gi suñu jigéen suñu jarbaat waaye suñu rakk waaye suñu doomu ndey waaye suñu doomu baay muy Seyda a Nduur bi nga xam ne yàlla ci moom la jaarale lii yëpp bi nit war a mën a tudd 7TV wala mu mën a taxaw di toog di seetaan fu sori bay xàmmee di ràññee ne kii diw la kii diw la wala lii lañuy wax wala fii la ñu wax wala nii lañuy waxee di ko ñaanal wér ak gudd fan di ko ñaanal sutura ak tawfiix ak teraanga ak daataange ñu ñëpp ñu yëgg xam ne ci fan yi passé am na xew-xew yoo xam ne xew na senegal doon xew ci ñu bëri di jàll ay néeg di jàll ay kër di jàll ay mbedd ba agsi ci mbeddam loolu jaar na ca te mooy natt bu ko yàlla teg ay nit fab ay paaka di ko jam di naqarlu di mettitlu waaye itam di ñaawlu lu mel noonu ci réewum senegaal muy ci moom muy ci keneen muy ci jigéen muy ci góor waaye di ñaawlu itam jëf yoo xamante nit mën na ko def ci réew mu indi sikki saaka wala mu indi noonoo wala mu indi ñàkk a déggoo ci ay diggante yooyu yëpp di ko ndokkeel di ko ñaanal ne askan bu bëgg jëm ci kanam war na moytu lépp luy yàq ndax sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne mooy xajam bi nga xam ne moom la mujjee def mooy xajjatul widaa xajjatul widaa mu amoon discours bu am solo bu mu fa defoon keroog laa wax ne seen métier journalisme keroog la ko yàlla dekkil keroog la ko yàlla dundal keroog la ko yàlla tàmbali gannaaw na mu daan amee mu war a nekk loo xam ne lislaam jëlal na ko boppam ngir ne adopté na ko te mooy tasaare wesaare xabaar mu tax ci wolof ñu wax ne taskatu xabaar taskatu xabaar muy xabaar bu mu amee ba noppi mu nekk loo xam ne secret la wala lu ñu denc la wala lu ñu yóbbuwut la wala lu ñu joxe ci barab am ñu ko war a dégg te jotaguñ ko déggaguñ ko nit ñëw jël xabaar boobu tasaare ko wesaare ko yóbbu ko bi ñëpp dégg ko ban xabaar la ñu wasaare sayyiduna nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàcce ci mu ne al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina ne mbir bi mat na tey mbir yëpp mat na luy xéewal luy teraanga luy diine luy jàppante luy jàppalante ne tey lépp sama diggante ak yéen jeex na mat na ak maltu matale na léegi nag wa raditu lakumul islaama diinan ndax inna diina inda al islam loolu moo tax ba ba mu waxee ak ñoom ba noppi julli ci boppam ñaan yàlla jàkkaarloo ak jullit yi ne leen nag xam ne ñett yii bés ni ki tey xaraam na damuhu wa maaluhu wa irduhu ne bés ni ki tey ñett yi xaraam na seen diggante yeenu nen damuhu muy deret maaluhu muy alal arduhu mooy deram kon ñetti dee yi at bu nañu toog fii wax ko ne kon ñetti dee yi nañ ko bàyyi xel yàlla ne xaraam na kenn ci ñun jël ko ci moroomam ci lu dul ndigal damuhu muy deret dërëm der deret mooy bul tur deret doomu aadama bul jëm doomu aadama bul gaañ doomu aadama bul tur deret bul yàq nit yi yëpp mu tere ko wa maaluhu alalam dërëmam moomeelam bu ko jël bu ko laal bu sàcc moom loo ko arduhu muy deram der bi bu ko laal bi maana bu ko tudd ci lu ñaaw bu ko war ci wax bi maana bu ko jëw jëw baaxut yëpp yàlla tere ñu ko ba mu waxee ba noppi nag ne ku jege ki na ko yegal ku sori ki ki fekkee na xabaar bi mu jël ko mu yóbbu ko mu tasaare ko mu wesaare ko kon su fekkee sayyiduna nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni defar na ko wala yusrif fil qatli bu leen yàq bu leen nappaaje bu leen tur ay deret bu leen wàcce ay bakkan mu dem ni bi mel ni nit ñi dañ ko def boole ko ci siyaasiya bi maanaa géopolitique nga xam ne léegi rey yàq yàqalante bi maanaa ñett yi der dërëm deret yi yëpp dañ ko jël mooñ ko léegi ñun dugal ko ci suñu politique réew wala dugal ko ci suñu dund àddina wala boole ko suñuy bëgg-bëgg yi ñuy am ñun nit pour mën a jàll jot li ñuy soxla moo xam ci àddina moo xam ci àllaaxira kon dem na ba nit ñi foog ne sax képp kuy def politique rek war nga rey bàkkan war nga wut nopp war nga wuqi bët war nga dagg baaraam war nga rey pune war nga war nga war nga <clears throat> ba ñu def lépp ci gis ci ay sacrifice sàcc ay xale dagg ay bopp nit mu jaral dem ci ay bàmmeel sulli ay nit sulli nit ba noppi daal di jël li nga xam ne moo ne ci wetam yemoo ca nga jël liñ ko muuree yemoo ca nga dagg cër ci moom te muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah rabbana axfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa surna ala alqawmi alkafirin yan nañu yàlla jéggal yan nañu mu mel ni rayante gi bëri na yàqalante gi bëri na lépp ñu boole ko teg ko taxta zille ad démocratia wa siyaasa te dara amu ci ndax loolu moo lay fal déedéet loolu dara fal ndax sacrifice yi moo lay fal ndax renit moo lay fal ndax da soxla deret da soxla benn xale buy soog a judd nga sàcc liir ñu gis ci senegal léegi mu ngi sacc ay liir di sacc ay jéeg di sacc ay ndaw di sacc ay mag sàcc ay góor di dagg lii yëpp lan moo ko yóbbu seytaan te inna kayda seytaani kaana daifa waaye nga delluwaat ci yàlla mu ne nag li nga soxla ci nguur wala li nga soxla ci donkaase gi mu ne yàlla moo koy joxe qul illahuma malika al mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika al xayru innaka ala kulli shay'in qadir gis nga aaya boobu yi ba mu fa yemee beneen aaya la fa teg boo xam ne waroon na mën a tax ñu xam ne ki wax ne man maay def lii waxaat ne man maa man lii ne yuuliju leyla fi nnahaar ma rucc génne lan al layla fi nahaar guddi ma génne ko ci bëccëg bëccëg naaj bi tàng jër bëccëg naaj bi leer mënuma jël jant bi sool ko génne foofu guddi wa tuliju nahaara fi layl guddi gi guddi ba lëndëm tuyus ma jeexal guddi gi génne naaj mu ne man maa ko man te doo dégg mu takk wala tik tik tubaab bu defee dara il faut mu am son bu muy génnee son bu wóor ne lii tàmbali na lii fi lay keng keke kek tik tik tik buuf ba po yàlla ne déedéet ànd kan moo mës dégg rek benn son ñu ne ah dégg ngeen son bi lu xew ñu ne jant bi moo doon so yàlla ne déedéet fa subhaanallahi ahsanal xaaliqin kon yàlla moomu moom moo xaraamal lépp loo xam ne moom la ñu nit ñi di wutee nguur wala di ko wutee donkaase ci kaw ca kanam di ko wutee ay rey ay deret ñu ne di de jaroo ko ngir na boo reyee nit nga rey diw ak diw pour ñoom kenn du leen tuddati yow nga siiw nga rey diw ak diw pour yow kenn nga nekk fi mën a taxaw loxo taxaw mën a tàllal loxo ne man la man la man la man la man la di ci kaw léegi nit ñëpp moom aha aha aha mun a déedéet kon nañ delluwaat ci xeeti dina lislaam waaye xëyte Sénégal bi nga xam ne moom la mag ñi tuddee woon réewam teraanga gaal gu neex gi ci géej gu dal gi muy daw di dem depuis kañ dañ delluwaat loola bokk bokkoo bëggante jàppante jàppalante bu ñu politique mukk boole bu ñu ay parti jaxase bu ñu ay couleur jaxase xanaa gisoo couleuru suuf xanaa gisoo couleuru asamaan xanaa gisoo couleuru ya fa nekk xanaa gisoo yow sa cër wa fi anfusikum afala tubsiruun wa fi samaai risqukum wa ma tuuaduun fa wa rabbi samaai wal ard innahu la xaqun misla ma annakum tantiquun kuréel yi nekk ci asamaan biñ fi nekk ba tey bu kuréel amee ba tey kuréelu géej gi ndox mi kuréelu asamaan bu bëggee taw bu tawee ba noppi niir ya asamaan sa ci couleur yi mu am suuf si boo ko gasee couleur ñaata la am la ca lan ak lan nga fa fekk couleur yooyu nu ñu yàggee ba tey ji ay couleur ci ay parti ñun dañu jaxase lan mooy couleur bi couleur dañu jaxase ana ban couleur nga am ci sa parti tax nga mën a gën yeneen sa parti gën yeneen parti ya ana ban couleur mbubb nga sol ba mën a gën yeneen ya waaye ana ban couleur nga mën a am boo xam ne dana mën a tax nga ne yow yaa gën ñëpp déedéet kon couleur bu ñu boole waaye ay parti bu ñu boole parti boo gis rek dafa am ay tur ay chiffres yoo xam ne ñoo composé wu ca tur wa ay kalimaat yoo xamante ne moo composé wu A B C ba Z alifun baun taun thaun bi hawaya bi tudd APR bi tudd LD bi tudd Pastef bi tudd bi tudd bët parti yépp jeex ndax yéen a sos kalimaat yi nga xam ne moom lañu ñu tëggee moom la tuddee loola ndax yéen a moom couleur yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci parti moom nga jël jëloo ci dara kon bu ñu bëggee gënante duñ ko xool ci ay couleuru parti wala ci ay turu parti walla ci ay logo wala ci ay signe déedéet waaye li ñu war a xool léegi fan lañ ko jëlee mu si jukk ju baax sayyidina nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxu ne ko waxal ma sa gaay ne laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisaain asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab bisa al ismu alfusuqu bada al iman wa man lam yatub fa ulaika hum alzalimun kaafiruun mu ne bu waa gox bi waa parti bi waa quartier bi waa mbootaay bi waa mouvement bi bu ñu wax ne ñun ñoo gën ñële waaye sa xaw min xawmin mu ne pourtant mun na am waa kër gi waa mbootaay bi waa sant bi waa mouvement bi waa parti bi waa waa waa ba ñooñu moo ñu dem ba foog ne ñoo gën ñi fekk ne yàlla ne ndeke ñooñu ñooñu sax asa an yakunu xayran min mun na am ñi nga xam ne ñoom ngeen jàpp ne yéen leen gën ñoom ñoo leen gën mu ne loolu nag bu mu am ci mouvement yi ci parti yi ci kër yi ci lii moo xam ci góor ñi la moo xam ci jigéen ñi la mu ne déedéet wala nisaun min nisa asa an yakunna xayran min hunna mu ne kon bu leen jey seen bopp bu leen gis seen bopp na ngeen yaru na ngeen am teggin na ngeen teey na ngeen dal ne inda akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën ragal yàlla kon soo bëggee sa parti gën ci parti yi firiwul ne majorité majorité mun na nekk majorité ci ay fen ay war ay tappale comme ni muy amee ci àddina te loolu yi nag mu dul loo xam ne sayyiduna wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil nañu ko ci alquran yàlla wax ko ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ne lan la mu ne bariwaana ñay wote ni majorité lañu di dogal seen dogal mun na am ànd ak seytaane de ak fe nag war ak tappale de ñu ñëw man mun waaye bariwaana nag mbooloo bu ndaw bu tuuti mu man ñele fukki nit man téeméeri nit fukki nit man ñaar fukk téeméeri junne nit loolu fan lay amee nag ci mbaax ci jikko ci yaru ci am teggin ci teey ci dal ci bëgg yàlla ci ragal yàlla ci yaakaar yàlla ci sell ci yow ci yiw ci yéwén waaye yëpp nag nga def ko ngir ne dangaa bëgg sa bopp dangaa bëgg sa morom te nga dangaa bëgg juboo ak sa borom lii boo ko defee lépp dana baax kon su boobaa kon yii yëpp boo ko defee ba mel ko nag ba noppi nag ba bàyyi yóbgoon yi yëpp kon yow mën ngaa woor kon yow bokk nga ci ñuy wax ne man shahida minkum shahra fal yasumhu il faut lii yëpp am pour nga mën a woor il faut que yi am pour nga mën a woor firiwul ne fen wor tappale sàcc yàq dajji toj cu deret yàq bakkan jëli alalu jàmbur def lu bon wax lu bon wax lu ñaaw ba noppi dañu na nga dem woor diddaani laa yajtamiaan mooy da ngay nitee nga baax nga yaru nga am teggin nga bëgg yàlla nga ragal ko nga bëgg yaakaar ko lii nga def ko mu ne boo noppee ba noppee ba pare nag waxtu bi ngay pare yow mun nga woor kon yow mun nga woor yow ndax boo waxtu boobu jamono boobu wóorloo nga say cër ci lu bon ba ñu ragal yàlla ba jaar ci yoon bi kon yow léegi mën nañ laa wax ne kon yow mën nga commencé kon koor te mooy nga xëy suba ba ngoon jot nga soog a woor mbokk yi mu mel nii weeru koor dugg na jot na te mu nekkoon bésu wàccaay dugg ci weer wi fas yéene nag woor ko nag woor ko ci njekk woor ko ci teraanga woor ko ci mbaax ci njub woor ko ci ragal yàlla woor ko te ngis sal ci bokk waaye woor ko ngir yàlla kese kese kese kon nag ñu ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñooy kilifa diine ci senegal yëpp sëriñ si nga xam ne ñoo jiite turuqu suufiya yi fi ne mu mel ni imaam yi fi ne ulama yi nga xam ne ñooy warasatul anbiya ustaaz yi jàngalekati alquran yi waaye itam monsieur le président de la république ci kaw ci ministre yi ci député yi ci gouverneur yi ci préfet yi ci sous préfet yi ba ci communes yi ñi leen jiitu ñoom ñëpp ñi leen jiite ñoom ñëpp ñu leen di ndokkeel di leen di wax ne ahlan wa sahlan wa marhaban fii ramadan mubarak bii nga xam ne mooy feeñ ci suñu ginnaaw nii mooy weeru koor bi yan na yàlla barkeel ak alquran bi nga xam ne moom la ubbi nii alquran boobu itam yan nañu yàlla boole dajale wan ñu ne moom mooy jaaruwaay bi mooy jàpp